لله الكريم سلمنا على اشتغالي بفروض وسنن الحمد لله الكريم سلمنا على اشتغالي بفروض وسنن شكر جوالي أنه قد ساقني لوطن به نفى ما عاقني وقادني إليه بالتحلي من بعد ما هذب بالتخلي وجرني فيه إلى العلوم والفوز والعمل بالمعلوم ثم صلاة بسلام تبعا على الذي قصدي أن أتبعا هل الذي من بمراده اقتدى في السر والجهر يكون مقتدى هو الذي هاجر للمدينة بأمر ربه فصان دينا وسيلتي لمالك الرفيع محمد الخير الورى شفيع وآله وسهبه النجوم القاهر النفوس والرجيم هذا وإني اليوم يا وهاب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 allaha yuhibbu tawaabiina wa yuhibbu almutatahirin wasbiru ala iqamati faraidihi allati faradaha alaykum dahaakum biha ila hadratihi li yukrimakum wa'dharu min tadyihiha fa inna fi tadyihiha taharrudan li halaaki mudihiha faman qaama biha ala sunnati rasulihi alkarim ajaarahu min adaabi naari aljahim wa ahalla lahu ridwanahu fi jannati naim wa ridwanu min allahi akbar dalika huwa alfawsu alazim wala siyama hadihi alsalawatu allati tudcauna laha fahabuha akbara min axawatiha wa ajallaha lianna maqaamaha lianna maqaamaha fi lhibadat maqaamu rasi fi aadaai zat fa farrigu laha alquluba maa la nazari rabb wa taxiru laha alsiyaaba wal ajzaada tafuusu bilqabuuli walqurb inna alsalata tanha ani lfahshaai walmunkar wala dicrullahi akbar wa fi lxadit buniya lislaamu ala xamsin shahaadati an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa iqaami alsalaati wa itaai alzakaati wa xajji lbayti wa sawmi ramadan rawahu albuxaariyu wa muslim يغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين بحرمة المحبوب إبراهيم وليسوا خير حلال طيب وخير جيران بحق طيب وتفرد في صفات كماله فلا تغالب فلا تغالطه الظنون أحمده سبحانه وتعالى بمحامده الذي يذكر بمحامده الذي يذكره بها الحامدون وأشكره بشكره الذي تقر به العيون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العالم بما كان قبل أن يكون وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله يا له من نبي تصرفت به الأنبياء والمرسلون اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم يبعثون أما بعد فيا أيها الناس ما هذه الغفلة التي أنتم عليها حاكفون تسمعون المواعظ كل جمهة, كل جمهة وأنتم عنها معرضون atazunnuuna annakum fi dunya muxalladuun am tatawahamuuna annakum laa tamuutuuna wala tubxasuun ayna alanbiyaau ayna alawliyaau ayna almursaluun ayna allumamu almaadiyatu ayna aabaaukum alaqdamuun qad saaru wallahi fi tiraabi wa hum llaana zaa'ibuuna mutaqatti'uun kullu nafsin zaa'iqatu lmawt wa nabluukum bisarri walxayri fitnatan wa ilayna turjacuun wa fi lhadit akthiru min qawli laa ilaha illallah qabla an yuxaala baynakum wa baynaha wa laqinuha mawtaakum wa fiihi xayrukum man taala umuruhu wa xasuna xamalu wa charrukum man taala umuruhu wa saa xamaluhu yaxfirullahu lii wa lakum wa li jamiihi l-muslimin wasiilati ilayka fi nayni salaa وصليا وسلما عليه وكل من قد انتمى إليه واغفر ذنوبي وتقبل عملي وليا خير منن وأملي يا من على عن المكان والعرض إني أساكن وانا وبي مرض فكن أنيسي واشفني من السقم حتى أكون سالكا خير لقم يا عدل يا مذل يا من يؤمن أنت مجيري هنا يا مؤمن فأبدا كن مؤمني يا ذا الجلال من كل سوء وعذاب وضلال يا من على عن زوجة وعن ولد حضني وعد جميعا لي ذا البلد واجعل إلهي مسكني طوبى أبد مثل اسمها بجاه خير من عبدوا وصليا عليه أفضل صلاة وآله وصحبه ذوي الصلاة وكل من قدمني أو زارا فنجه واغفر له أو زارا وكل من أحبني أو مالا إلي برزقه هدى ومالا وكل من شتمني أو لاما وقبل وتوبة واستسلاما فكل من عسى سنه بيا وليقلب قلبه يا ربي وتكفني أذى جميع العالمين وأنت في مزايا يا ربي أمين واجعل بنائي بناء عافية يجرني إلى خير سافية واجعل بنائي بناء علمي وعمل بسنة وحلمي واجعل بنائي بناء الاهتداء ودفع عني كيد كل ذي اعتداء وتكفني دار أذى الشيطان واغث به الباقين في الأوطان وتكف عني كل شخص لم يرد وجهك فاطرف سريعا إذ يرد وتصرف عن جملة ما يفسد عن يدي وعن داري سريعا حيث عن وتدخل المطلع في يدي وفي داري وثبته بالهادي الوفي وأعلني وأعل من يعينني ودفني جملة ما يهينني ومسكني سلم من الفجار وامن على الآل بماء جاري واجعل رب مننا المعجلة جالبة لمنن المؤجلات واجعله رب مننا معجلا جالبة لمنن مؤجلا يا حي يا قيوم كن لي مجيب أنت المجيب والكريم والقريب إليك وحدك فررت من سواك فكن بذاك قائدي إلى هداك وليكن ربا وليا ونصير ولي sayidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi rawi ridwaani wa tamkin alquran la dafa am lu mu santaane fa ida qudiyat salaatu fantashiru fi l ardi wartaxu min fadlillah kon ci ndigalul cheikh Mouhamadou Moustapha ibnu cheikh Abdoul Ahad Mbacke mi nga xam ne moo fi teewal Serigne Sidi Mbacke mi nga xam ne Serigne Cheikh ibnu Cheikh Saliou Mbacké bi liggéey bi àggee dafa jëlaat lépp tegaat ko ci loxol Serigne Sidi na mu ko defee woon rek ca jàkkee mbur mi ngir xam ne mooy kilifaam ci biir yoon bi Serigne Sidi yónneewaat ci Cheikh Mouhamadou Mountakha yégalaat ko ko mu door a ak si nii tey kon ci ndigalu Serigne yi mi nga xam ne moo ko fi teewal di nuyu di siyaare bu baax mboolem njabootu Serigne Touba yëpp tàmbalee ko ci. Serigne Moustapha Mbacke mu Cheikh Abdou Khadim bi nga xam ne moom la Serigne bi yabaloon mu jiite jumaa ji muy loo xam ne nekkul li ñuy wax athar muy muy loo doonul rek lu ndax ko xam diggam ak Serigne Saliou Mbacke ndax bokkoon na ci ñi Serigne bi mujj waxal hmm. mu jege woon ko fonk ko lool daa ko seereel kàddu yi ne fu ma la gise damay fàttali sama ndaw kon lii bu fekkoon Serigne yi xolam dana ci set mi ngi fi sax ndax jógewu fi waaye lii mu defaat tey wóor na ma xam ne xolam set na ndax doy loo na ko wóoloo na ko ci lu kon na ko Serigne Sidi Mbacke ak ci ndigalu Cheikh mu jiite waat fii loola dana mel topp seen i jeexit ñu ngi siyaare itam Cheikh Mouhamadou Bachir Mbacke mu Serigne Saliou mi nga xam ne. moo fi teew ci waa kër Serigne ak mboolem rakkam yëpp. di Serigne Abdou Khadim Mbacké ak Cheikh Mouhamadou Mourtada ak mboolem taalib yi yëpp yi fi teew kon kàddu yi du gudd euh, ci ndigalu Serigne Mourtada rek lañ <laughs> mooy di sant ñi fi teew ñëpp ci lii nga xam ne def nañ ko. ne ko alxuraan santaane ne istajibu lillahi wa li rasuli iza daakum lima yuxiikum lii nag dund la néegub yàlla la kon ba ko Serigne Saliou Mbacké naale moo doonoon lu ko itteel ndax ku ne xam na ne fii ab quartier bu mu fonkoon mu doonoon yitteem loolu itam yàlla def mu dénkoon ko taalibeem ba Serigne Béthio Thioune mu liggéey ko ba mu àgg du mu àggee itam yàlla defaloo ko ci tawfeex ñoo xam ne dañ ne seeral li nga mag Serigne Saliou ndax bi mu koy jébbal Serigne Cheikh ak bi mu fiy jógee motul weer. wala ñetti ay bis kon loolu mel na ne seer la di ñëw sëriñ Saliou moom rek dafa amoon dimbal ci sëñ bi lu mu am rek sëriñ Saliou moo ko jox mm-hmm. lii itam firnde la ci bëgg kon nag ñu ngi nuyu ñëpp ci turu sëriñ bi di ñaan képp ku fi teew suñ doon jéggale say bakkaar aajo yi waaye daal bi yàlla ko yàlla faj képp koo xam ne fii te itam yàlla borom fayal ci barke Sëñ Tuubaa wassalaamu aleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatuh kun muizana min alwabaai wa kulli naazilin min alsamaai wa kulli maa yaduuru fi alardi wa maa بينهما يقول يا رب السماء واجزر قلوبنا مع الجوارح للبر والتقوى بجاه نازعين وصليا وأزكى صلاة دافعا عنا وباء من جرد مانعا عليه والآل بأفضل سلام وزعبه ومسكني حديا سلام وزكي نفسي وسجني علما يكتب في الدار عني هما وطهرا قلبي وزدني حياه وأحيني في طاعة يا ربي واجعل يميني كسحاب في سخاء ميمونة في سدة وفي رخاء يا الله يا وهاب يا أعلى رفيق بيسلكن اليوم أنفع طريق بحرمة المصفع المقرب